moom laa mën a wax rek mooy karawaan bi moom am nañ ci yaakaar parce que gis nañ ne conseil yi lépp loo xamante ne ni ñu ngi koy euh, wax am na solo ndax gis nañ ne d'abord ñoom ñëpp dinañu wote ca le 4 septembre pour que élection yi ñu mën ko gagner mooy coalition Benno Bokk Yaakaar loolu dàpp naa ne mooy li nga xamante ni moo am solo beneen mbir bi mooy euh, gis nañ ne ñi nga xam ne ñoo nekk ci beneen wàll bi fi mu ne nii ñoom daw nañ bu yàgg xam nga nit nag koo xamante ne nii da ngeen a war a jàkkaarloo mu daw. sans pour autant nga gis ko euh, loolu moom dafay xaw a doy waar parce que Idriss mi ngi wax Sénégal yëpp naan réew mi day boycott élection boycotté wuñ dañuy daw défaite te nit nag jàpp naa ne bu fekkee ne kilifa nga da ngaa war di taxaw ñeme di jàmbarloo waaye moom depuis mu perte ci référendum yi ba léegi moom dafay bañ rek ñu ne Idrissa pertaan na Thiès waaye loolu yéen ñi ay taskatu xabaar xam ngeen ñaata conseil ñoo am ci département bi ak moom ñaata la ci am donc vraiment ñooñu mënuñu doon benn souci ni problème par rapport à nous maintenant li nga xamante ni bëggoon naa profiter ci occasion pour wax ko aussi moom mooy gis nañ ne opposition bi créé ti nañ créé ti nañ lay wax wattu Sénégal wattu Sénégal wattu xaw ma wattu mais loolu mooy wane rek ñoom. cohérent wuñu maanaam du ñu ay nitu xalaat du ñu ay nit ñu am vision du ñu ay nit ñoo xam ne Sénégal leen ñor créé woon nañ front xëy tey créé waat wallu tey jii ñu créé wattu xam naa nekk finalement jébbalu ci Macky Sall lañu jëm parce que wallu yëfu jàmbur la xam nga nit koo xam ne xamoo fi nga jëm amoo xalaat amoo xam-xam chaque jour da ngay def ay njombe njombe ji ñu def nag mooy jël li nga xam ne mooy mbiru jàmbur taala si la mooy président wàllu ñëpp xam nañ ko ci Sénégal depuis 2008 ñu ne dañuy créé waat yëfu jàmbur moo tax bañ leen waxee ni lii kat du seen yëf yëfu jàmbur la ñuy woote waat réunion comme ñoom ci ay opposition salo slogan la ñuy indi beneen slogan mooy wattu Sénégal wattu xaw ma wattu man xaw ma sax ban lañ ci def waaye li am solo rek mooy loolu mooy wane ne ñoom amuñu gis-gis amuñu xam amuñu xalaat opposition salon ak slogan chaque jour da nga dem ba seen militants yi sax dootuñu xam ñoom ban lañ ci fet donc loolu muy li muy wane rek mooy que ñoom li nga xam ne moom mooy Sénégal ak sénégalais ñoru leen te wax dëgg yàlla opposition mel noonu boo ko amee ci réew sax war ngaa jaaxle. waaw xam nga euh, d'abord ma wax la li nga xam ne moom moo am parti socialiste ñoo ko proposé. maanaam ñoo proposé APR na jël ñaari AFP jël benn xam nga nag koo xam ne moo proposé loolu ñuy waxati moo tax gis nga ñiy wax nañu xam li ñuy wax nit booy wax ci kër jàmbur da ngay dem ba kër ga xam la ñu xew ak la ñu waxtaan dañoo waxtaan partie socialiste ñoom ñoo jug ne nañ APR jël ñaar AFP jël benn wa waa déggoo li ma la xam nga coordination xombal moom benn coordination la bu am cinq collectivité comme ni nga ko waxee waaye bul fàtte ne am na fukki collectivité ak juróom yoo xamante ni moo am ci département bi majorité nag dafa am démocratie moom mooy ñii wax seen xalaat ñii wax seen xalaat waaye bu majorité bi ëppee mais dañ ci topp loolu vraiment mooy li nga xamante ni mooy démocratie parce que nag aussi démocratie mooy ku ci nekk am sa xalaat di ko wax ci nga xamante ni moom la gën a maintenant parti waa participa waa non taux de participation bi pratiquement c'est réglé parce que conseil ci boppam ñoo waxal seen bopp gis nga fii sax réew mi conseil yi ñi fi nekkoon fii taset sax gis nga leen ñoom la ñu amoon ku néew jël nañ ko indi ko APR pour jàppale président Macky Sall loolu mooy wane ne ñun mënuñu am jaaxle ci taux de participation bi ña nga xam ne ñoo nekk Thiès te bariwuñu ñoom comme daw nañ ba pare donc xam nga ñooñu mënuñu laa jaaxal parce que nit ñoo xamante ni dañ ne leen kaa ñu xëy rek nga doon euh, benn problème par rapport ak organisation élection ak taux de participation merci